gala bi lay doon lay mais man euh, comme que man mën naa si plateau bi je représente la jeunesse moom laay wax mhm. parce que dama gis ne violence bi phénomène de société lañ ko bëgg a def mhm. aujourd'hui on a vu la grève des transporteurs ñu taal ay ñu pare ci loolu ñu gis làmb ji gis violence mhm. ñu pare ci loolu mu mujjee ci foot bi dem yaa gis stade boo xam te toog na sept ans ñeen soxla ko mënu leen ko jot mu mel ni jeunesse bi léegi lu ñu am lu ñuy kaas dañuy dem yàq fàtte ne hmm. l' argent de du contribuable la wax nga ko léegi suñu hmm. xaalis la hmm. wala sax sax violence boobu pourquoi la mën nga résoudre sa problème wala nga wax lu la metti sans pour autant nga indi xeex wala xuloo bu nu gaañoo boo fa gaañoo yow yaay perte sa rakk moo fay moo fay gaañu policiers yi ñoo bokk ndek baay man je pense que ne ku ci nekk war nga mën a conscientiser sa bopp wax na li may yàq man maa ko moom xeex amul njëriñ li jëntu dara il faut que mu mu arrêté. Mhm. parce que man chaque jour dama ko dama ko dama gis situation bi. Mhm. ma man je commence à avoir peur. Mhm. parce que làmb day jeex kenn ñëmut a génn sa kër. ñu seetaan football la lendemain ñu gis les mêmes scènes qui se répètent. Sénégal musta image bi te jii jeunesse bi ñoo war a conscientiser seen bopp ne lii waruñu ko def. en plus c'est le monde qui nous regarde. man je en fait j'ai peur dama daf ma dépassé moo tax ma ne Kandé on peut pas terminer sans pour autant conscientiser aujourd'hui cette mm. jeunesse sénégalaise mm-hmm. voilà euh, euh, on est le temps est épuisé mais on va prendre trois réactions ici deux et puis une dame là-bas Awa euh, ma jumelle voilà qui va prendre la parole. <laughs> il y a il y a l'autre beneen international hein, je vois. oui oui il y a Bakary Bakary <laughs> qu'on salue au passage Bakary voilà oui euh, Awa. merci jumeau bonjour à l'assemblée bonjour chers téléspectateurs de la 2STV mm. alors man damay wax ci violence bi parce que je mm. pense que je suis mieux placée pour en parler d'autant plus que j'habite la banlieue mm. mais je dis que en fait l'objectif de départ du sport c'était unifié. mais on a vu que depuis quelque temps nekkatul loolu noonu on n'arrive plus à unifier les gens parce que à chaque fois que nit ñi dem stade mhm. et c'est bien dommage que à chaque fois ci ay violence lay mujjee mhm. vous l'avez dit les les matchs les plus importants c'était les derbys mhm. mais tey derby yooyu ñoom ñoo gën a nekk source de violence je donne l'exemple de fi ma dëkk man zone 9 Diacksao 2 ak Tandems c'était les deux équipes yoo xam ne ça mobilisait de personnes ci zone bi yëpp parce que lu tax ñaari kër la euh, en fait quartier la yoo xam ne benn tali kese moo dox seen diggante. Mmh. y a des cousins des dañuy sëyante ci seen biir donc mbokk la. Mmh. mais à un moment donné ñaari équipe yooyu suñuy football ñun banlieue bi duñu ñemee sax xëy dem liggéey parce que benn désordre la boo xamante ne doo ko mën a sax décrire pour nga da ngay préférer toog bañ a xëy. wala boo xëyee tu es obligé de rentrer plus tôt que prévu mhm. alors que loolu c'était pas l'objectif par exemple du sport mhm. tey boo demee ba arène nationale ñu defal ñu ko ci banlieue bi sax la waroon doon mais aujourd'hui c'est un traumatisme que nous vivons mhm. royante fii jël paaka agressé tey booy dem perruque sax doo ko ñemee sol parce que dañ koy futti du coup c'est c'est c'est c'est boo xam ne doo xam c'est une scène boo xam ne indescriptible du fait doo xam exactement hmm. mais je pense que li li li Fatima di wax man je pense que l'État a sa part de responsabilité dans ça hmm. parce que il faut que tant ñu ngi neexal nanguwuñu sanctionné lii du fi mës a jógee ba pare tant tamit xale yi génnuñ ci mbedd bi taal pëna duñu leen fajal lu ñu bëgg donc hmm. c'est c'est parce que am na beneen émission bi war a commencer léegi on aurait pu rester là en tout cas ba Bakary merci euh, Mbaye qui voulait prendre la parole Bakary vous quelque euh, voilà Arona merci beaucoup Mbaye Sène ah <coughs> parce que moo jeex parce que am na beneen émission a commencer donc voilà on, on va juste rappeler euh, l'association nationale de la presse sportive organise un panel samedi samedi bi di ñëw inchallah maison de la presse alors 9h30 mooy convocation bi 10h pile ñu démarrer 10 donc euh, c'est sûr <laughs> c'est sur la la la la CAN donc euh, puisque def nañu quinze éditions. gagné wuñu Coupe d'Afrique. loolu nag euh, c'est vrai que am na ay cartons invitation yu ñu yu ñu distribué mais tout le monde est invité ceux qui nous regardent douzième Gaïndé